fii ci Soumbédioune ngeen fekk suñu fii ñu ànd ak jaraaf Adama Mbengue muy def anniversaire boo xamante ni si nag bi ko intronisé ku xam na ni coow li bari woon na lu ne xew na fi mais boobu ba léegi Soumbédioune xam na ni jaraaf am na fi ba tax na lépp lu ñu def Soumbédioune ci jaraaf lay jaar Soumbédioune gën nañ ko jox gëddaam ndax boo xoolee kaw kawtinal bi kenn mësu koo mën a baare kenn mësu koo ñemee teg turbine jaraaf moo ko fi indi tey nag dañoo am ren thème boo xamante ni si ci anniversaire bi ñu ngi ko tuddee festival lébu pour la paix man lébu gi dañu am yaakaar ci man ma nekk si jaraaf bu ci gën a ndaw wala am ay yàqu-yàqu yu ma fa fekk war ko réparer aw kenn axaar ma yàlla mais dañu bëgg tegaat lébu gi ci lébu gi kon nit danga war a liggéey ngir say mbokk kon nit danga war a liggéey ngir sa askan soo ne sa mbokk lébu gee tax soo ne sa askan Sénégal moo tax kon bu ñu liggéeyee ngir sunu askan lépp lu ñu defoon rek dañ koy yokk lu ma defoon benn dama koy fas yéene doublé lépp lu ma doon def benn rek naa ko déglu parce que àdduna moom moo doxee nii tey man lépp lu ma liggéeyoon rek xeeb naa ko te dinaa ko doubler. ñu gis thème bi nga xam ne da nga ko jël muy thème boo xam ne ñuy wax c'est thème thème mu actualité jamono bi ñu toll nii ñu soxla jàmm trop nga jël thème bi teg ko ci jàmm. waa jàmm boo ko gisee mooy lébu yi ñoo dëkk dakaar kenn waru leen jiite ci woote jàmm kon ñun sunu dëkk dañu ko war a aar woote jàmm d'abord parce que jàmm ci la lépp xaj bu jàmm amul rek dara mënta am. tey fii bu fi ay bal tàkkoon doo dégg jàmm mais lii feetu Soumbédioune la lu tax mu nekk feetu Soumbédioune la événement bi am na ba jeex am na ba jeex ju soo xeer dal Soumbédioune dara dalul Soumbédioune kon tey lu dul jàmm jàmm ka jën di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di ndokkale son excellence monsieur le président de la Macky Sall si lu baax li mu def ci teranga gi mu defal senegal ci fi mu yobbu senegal ñun lebu yi ñong ko ci sant ñong ko ci gëreem lebu yi nak di wax ni bala ayam di jeex bëgg nañu tok ak mom parce que am nañ ay compte yu ñu wara rand yo xamanteni ñun ak mom ñoko wara waxtaan ndax suñu rew buñ koy denk dañ ko bëgg tek ci loxoy leer te mom ñong ko ci bayyi nopp. culture lebu lañu bëgg indi waat indiwaat demuloon tax waye dañ ci bëgg pour mu gëna am doole alors euh, man ak jaraaf Adama mbeng ñoo ko organisé pour indiwaat culture bi ndax euh, daf ñoo culture mooy le début et la fin. parce ah. dit ça. voilà donc c' est une réalité donc culture moo tax ngay xam sa bopp foo toll di fàttaliku sow xam fi nga bokk te lébu dafa nekk fii ci Sénégal. Euh, lébu fii Sénégal lébu bu dee race des ethnies. parce que nous nous n'avons jamais connu la monarchie nous, suñu à affaire buur Dans la équilibrement sur table avant la révolution française donc euh, on a tout discuté voilà on dit la république des bouts L'Union en république avec le gouvernement avec son président avec le ministre de l'intérieur on l'a eu bien avant la révolution française donc bu ñu demee ba jamono ñëw dañu war a maintenir boobu culture parce que lébu dafa am jom lébu du ñaan musuloo gis lébu buy saraxu ci mbedd mi doo ko gis lébu saraxu tàllaloo ñu jom te yooyu culture yooyu dañu bëgg bu ñu dem suñu doom yi eh, yore ko mu continuer mag ñi nañ ko woon mu ñëw ci ñun suñu doom yi moo tax ñuy indi culture bi ba pare jola yang ngi nii yang ini, ngi nii lébu ham, la mës a xam boole ay njabot, boo demee ci biir lébu gi pël yaa ngi fi soose yaa ngi fi ñu may leen ay kër jox len ay tour, ay tour ñu jox len, loolu moy lébu. kon sama teewaay fi day jaadu ma teew mais dafa fekk ma ànd ak sama ben leader politique di El Hadj Thierno Ndiaye nekk ci commune face koloban geul tapé nek fi di def lu bax ba ñepp xam ko ràññee ko ci commune bi yëpp dañ ko ràññee kon mom suma ma ne jógal bu ne bu ne ma jogol damay jog, même bu ne bu won jogal té li am fi té sama mbokk lébu yi tok ñom ñi nga xam ne ñoo ngank dakar man damay bayyi sama ñew tok ni ñom lu ñu ne ma ci ak ñoom parce que aw ma ñu upp ñi ñi rek la am donc aw ma ñu leen upp kon lu melni ni dafa bax traditionnellement ñu dekkal def di fàttaliku nit yi lan mooy lébu démb doo fi bis genn xeet lébu rek moo may toog yaatal boppam ñëpp ku ñëw bu dëkkal dox la dox la reer boo moytul mu jël doomam sax may la. lii moom la suñu maam bàyyi suñu loxo moo tax ñu taxawal cérémonie bi a ah, jël jaraaf Adama beng mu taxawal lii ndax lii suñu ndombay maam la ñu doon na ko sunuy maam moom mu takk ndombu maamam muy jaraaf ñu ngi takk sunuy ndombu maam muy ndey ji réew. kii ma dendal mooy ndey jàmbur mbay ci fi jaay yàlla dogal suñu maam lébu xamul lu bon lébu xamul lu ñaaw lébu li mu xam mooy teraanga di teralaate di teral nit ñi teral nit ñi loolu lébu xamoon suñu maam xamuñ ma suñoo xam dara lu ñaaw jamono nag léegi yàqu na est ce que ndaw yi ni ñu mel noonu la ñu war a mel est ce que taxawaay yi am léegi nii la war a mel nañu soppiwaat suñu suñuy toogaay jekkalaat suñu toogaay ni mag ñi tooge woon ñu tooge ko ni suñuy kilifa tooge woon ñu tooge ko ba réew mi mën a jëm si kanam dañuy rafetlu présence su troupe aussi bi euh, suñu mbokk yi jógee ba Casamance ñëw tey euh, fekk si jaraaf day wone ni rek déjà Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñun ñëpp ay mbokk lañu ñun ñëpp ay doomu benn réew lañu donc ñun ñooy jàppalante ñun ñoo mën a jàmbalante tey liñ fi gis on voit toutes les facettes de notre culture que ce soit la culture lébou que ce soit la culture diola que ce soit la culture séeréer vraiment dañ koy magnifier Euh, di xam ne nag message la boo xam ne li fi xale yi di wax war nañ ko préserver parce que culture xaw na tumuranke nag ci suñu réew mais aussi ñu nekk ci place boo xam ne ci tafes la te temps yi yëpp actualité bi euh, immigration clandestine bi euh, surtout jëlum gaal gi daal di commencé waat ñiy conscientiser xale yi dem rek ak mag ñiy dem ñi leen di yóbbu parce que jaraaf wax na ko sànq xëy na tey ku xamul géej doo ci yëpp ay nit ñiy dem suñu mbokk lébu yi xam ne ñoo yore gaal yi di yóbbu Euh, ak xale yi dem ñi xam ni li woykat bi waxoon rek moo ci nekk du ku rek tekki ku des ci dëkk bi torox nit ñaa ngi fi des di tekki nit ñi di tukki di gën a tumuranke kon bokk liggéey am na fi ku ci nekk fi nga nekk bu ñu xoolee li ñuy jël di ko dépenser pour dem ci gaal yi bu ñu ko dajale woon seen i bon mutualiser seen i effort mun nañu créer ay petites PME mun nañ créer ay petites entreprises euh, ñi jàppale leen si mais aussi c'est l'occasion ñi invité autorités yi ñi gën a yokk jéego yi il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits le chef de l'État def na près de 450 milliards qui programme xëyu ndaw yi mais tey euh, bu ñu xool réalité bi dañuy yaakaar ni xëy na defuñu dara kon boog jaar nañu càmbaraat mbir mi xoolaat naka lañ koy gëna vulgariser naka la ci nañ koy yombalé ba xalé yi jot ci ba yaakaar gi mëna a ci ba ñu mëna tok parce que wax dëgg yàlla dëkk bi amna na ay perspectives tey Europe tas na ba paré li fa nekk ñëpp xam nañ ko dem

li ko commencé Casamance Oussouye Kassouane Ziguinchor yëpp joolaay yi nga xamné tay ñun dañ dan joggé fi di dem di len di len séti dem di len séti ñuy bokk ak ñom ay programme culturel yu melni ñoñu ñëpp yalla def na ñom ñëpp ñu ngi ni tay toog ci sama wet muy reine bu Casamance ak euh, reine bu Oussouye ak euh, reine bu Ziguinchor ñoom ñëpp ñëw nañu gis ngeen léegi seen euh, xale yi def nañ fi benn démonstration boo xam ne euh, jaaxal na ñu bari waaye ñun duñu jaaxal parce que souvent ñun ñu ngi Casamance ñoom lu ñu xewle danañuy invité te dañuy ànd ak jaraaf Adama Mbengue di dem foofu ba tax na lii nga xam ne ñun moom la ñuy ñaan ci suñu Sénégal gi di ko ñaan ci suñu Sénégal man la man Maguette wan ma di ko ñaan toujours ma di ko wax mooy jàmm la ñu bëgg ci dëkk bi. jàmm jooju ñun yàgg nañu ko dox dox nañu ko Casamance dox nañu ko Côte dox nañu ko Cameroun euh, tey jun moo aye ñu ñëw fii tey pour la pe pour jàmm jooju des fii ci Sénégal parce que lu dul jàmm jàmm moo ko gën ndax lii ni mu rafetee nii suñu amul woon jàmm kon lii du am kon ñu ngi ñaan dëkk bi yàlla defal ñu fi jàmm. lii nga xam ne nii président liggéey na ko ci dëkk bi tey ñu ne du bokk ci élection yi loolu jàmm la joo xam ne siñ na suñu jàmm la boo xam ne ni bépp sénégalais bépp borom ndomb war na ko mën a rafetlu àndax président ci si geste boobu nga xam ne def na ko ñun lébu yi ñun lii nga xam ne mooy suñu devoir mooy ñu defal ñu jàmm ci dëkk bi ndax ñun duñu contre buur duñu contre buur ku fi mën a falu rek ñun yow la ñuy àndal waaye li ñu bëgg mooy ñu defal nu jàmm si dëkk bi ba tax na jaraaf Adama Mbengue ñu ngi koy sant di ko gërëm di gërëm estafam di gërëm troupe ndaw rabine yi fi nekk di gërëm ñëpp ak diñiteer yi yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm loolu daal moo waraloon suñu teewaay ñu def une forte délégation kii toog sama wet nii maax moom ñoo bokk fenn fu ñu dëkk muy muy chef de penc Alaaji Moussa Niang Euh, tey moom mii toog nii bokk na si ñii demoon Casamance loon ndox baisse des armes baisse des armes boobu ñu loon wax ca Casamance moom mii yàlla def na moom la ñu délégué woon moom moo fa nekkoon kon ñun yàgg nañu ndox jàmm yàlla nañu yàlla defal jàmm. man maay Moussa Niang chef de penc bokk si conseil notable Lebu di Grand Cap Vert di wax na tey oote bii nu daje fii si Adama Mbengue nu ngi si am mbégte mu rëy di wax na bii mooy deuxième édition nu ñëw fii mais lii lal oote bi mooy jàmm parce que lu dul jàmm jàmmal la gën te le président Macky Sall dafa oote jàmm si réew mi lii jàmm rek moo ko man tey jii ñu oote àddina ñuy jógee ba Casamance ñuy jógee ba Oussouye tey xeet yëpp daje fi di def culture def naa li jàmm rek lu dul jàmm jàmma si gën kon moo tax tey ndaje mi dañ si am mbégte mu rëy àndax nag dignitaire lébu yëpp conseil notable des dignitaires lébu ñëpp teew nañ fi Ngor Wakaam Yoof Rufisque Bargny kenn desul Mbour ñëpp teew sa nañ fii ba Casamance banlieue bépp teew sa nañ fii nu àndaax nag les dignitaires lébu kii toog suma boor comme ni ma ko waxee mooy Lamane Maguette Wane wax dëgg yàlla mu yàgg a dox si culture yàgg a dox si jàmm la paix defe naa keroog ba ñu dem Casamance di def dépôt des armes nun ñu ñoo demoon dem si roi aussi mu dalal nu si dalin wu rafet kon dama ne lu dul jàmm jàmm la gën nu ngi leen di sant yéen ñi nga xamane ne tey di yéenay jàllale jàmm si réew mi. ndax jàmm mooy lépp. bu doonu toon jàmm duñ fi doon yegg si donc maa ngi ñaanu yàlla ñëpp ñi fi daje ñi teew fi si jàmm ak salaam bu cérémonie bi jeexee ku nekk daal mu ñibbi këram si jàmm ak salaam ñun ñi nga xam ne ne dañoo jóge ba Casamance yoon bi sori na waaye maa ngi ñaanu yàlla bu ñuy dellu mu teg ñu si yoonu jàmm ñu yegg si jàmm ak salaam fekk fa suñu njaboot jàmm ak salaam merci. ñu gis ne fii pratiquement ça y a une symbiose. la culture a été fortement représentée alors que Senghor ne la culture est au début et à la fin de tout ñu gis ne culture am na fi ban culture ban de culture war a am ci li nga créer la paix au Sénégal. La culture bi moom la am culture bi daal mom la am nit ki bo bo bo bo bo boo xamul sa culture lo ki nga doon donc culture bi ñu ngi ñaanu yalla ñi bañ ka faté aduna bi bu ñu jaral faté suñu culture man du ma rus nan man jola la xam nga donc euh, culture bi ba tey gis nañ ko gis naa ko si yi gis naa ko fu gis naa ko ci séeréer yi Buur Sine moo ma dalaloon est passé ma ngi euh kii fatigue donc euh, vraiment euh, li rek moñu mëna may jamm wa il faut kilifa aada yi kilifa cosaan ñi xam culture rek moñu mëna may jamm sans culture duñu dem Je suis la reine mère de la Casamance naturelle, la reine mère Apoy Etam, présidente des femmes du bois des bois sacrés. Je viens de la région naturelle de Jiguencho, de Goulumbo à de Mpak à Selip. l'importance de la culture pour la paix, surtout la paix en Casamance, au Sénégal plus précisément. Moi, euh, une mère qui suis euh, depuis les, le 82 dans ce processus de paix, euh, je, je, sais et je l'affirme très haut que la culture est le soubassement pour aller vers la paix. Sans la culture, on ne peut pas aller à la paix. Donc la culture est notre instrument de travail pour accéder à la paix. Ces efforts conjugués parce qu'effectivement, euh, la culture euh, au Sénégal est très vaste. Nous avons des potentialités culturelles que nous ne devons pas euh, laisser en rade. Parce que chaque région a sa culture, chaque région a des valeurs sûres que nous pouvons utiliser pour aller vers la paix. Nous, en tout cas, moi, reine-mère euh, de la basse naturelle, à Poétam, c'est mon, c'est mon bâton de pèlerin, la culture. C'est ce qui a valu que nous avons été associés dans le dépôt des armes de Djakaï. fukki fan man dama contane ba xawma sax lumay wax ma sha allah contane na torop contane na contane na ci ñep contane na ci ñep te wu yow yaay kan. ah alaykum na ngeen def ba yéen ngi ci jamm alhamdullilah wa man may ko Mané la reine de Saba di doomu ndeyu jaraaf waaw. man waa xanaa kontaan rek na Medina rëy na bu demee ba def ma la reine de Saba dama siy kontaan bu baax a baax ndax jaraaf sama xarit la sama nit la waaw parce que man dama yor mbootaay fii si Medina waaye moom xeebu ma lu muy def rek dama ma ciy boole waa jaraaf sama càmmiñ la kontaan naa ci moom bu baax a baax a baax a baax. gis na tey ah culture am na njëriñ si dundu nit parce que man maa ngi nii boo ma xoolee rek nga xam ne culture am na njëriñ si dundu nit parce que ñun loolu la ñu am parce que suñu maam yi ay lébu la ñu waaw ñun lii la ñu xam. ndax jaraaf c'est l'ami du président jaraaf xaritu Macky Sall la jaraaf xaritu Dakar la waaye jaraaf xaritu réew mi la tey jii lii mooy festival culture traditionnel lu waral lii jiw li ñëw li muy Sénégal ñëw waa kër Lac waa kër Maam Jare waa kër Kumba Bang tey kenn desul moo tax tey jii sama xol dafa sedd tax mu sedd ñi jël gaal tey culture lañu wane ndax jël gaal baaxul réew am na liggéey na président Macky Sall ubbi tool na président Macky Sall ubbi li nga xam ne mooy usine yi gaal doomati waa mais culture moo tax Sénégal dund sans la culture, le Sénégal, ce n'est rien. Dis-moi pourquoi. Ah, oh. La culture serrée, culture Djola, culture roulé. culture le, le fondement. Ça la culture, Sénégal, ça ne marche pas. Ça la culture, on ne suit pas. Culture culture

Antoine Diome président sama ñett ñu mel ni moom jëru ko coow di gërëm na Abdoulaye Diouf Sarr lébu la di gërëm Amadou di gërëm Cheikh Ahmed Diane Ba le médecin Médina di gërëm euh, Thierno Ndiaye waaye di gërëm le le maire de Fann Point Amitié moo ci jàpp le maire de Fann Point Amitié gërëm te am na gërëm na Madiagne Gueye waa Kër Omar Gueye te am na gërëm na ñoom ñëpp ñu gërëm toute la culture lépp waaye di leen gërëm ndax yéen yéeneen Ndakaaru yéen yéen a wane lépp lu waay lu waay gisul woon yéen a ko wane seen liggéey set na rek la neen seen wax bëriwul. waaw ba ma sant waa Dak Médina vraiment seen taxawaay rafet lool fii ci Médina tey nag ñu teewee lii weddi gis bokk ci ah ñu gis sunu jaraaf Adama gis fi jaraaf yu sundoo ñu ñëw. ah ñu ñëw nag ci turu ki nga xam ne mooy l'homme social de la Médina di ñëw ci ki turu ku xam ne boolewul dara ki wax moom ay waxam day doore rek ni muy dooree mooy làmb lu bari jox la moom lañ fi teewal tey ngir sargal bés bi sargal jaraaf bi defal ko Médina yëpp nag ci kontaan Cheikh nii rek rek na mel lu mu fekkee faj ko lu mu yëg a gën lu mu yëgul loolu rek laa am lu ma wax gis ne moom encore jàmm dafa bokk ci li xam ne dañ koy seen fii mooy culture am ñu ngi gis nañu gis ñu joolaa yi gis euh, euh, xam ne ñooy lébu yi ñu gis brassage de culture bi nga xam ne am na loolu am lu muy addu ci jàmm Sénégal lu muy addu ci Sénégal brassage bi nga xam ne brassage culturel la lu am solo nga wax parce que defe naa ne jàmm moo la fi indi moo ma fi indi moo fi su gis lii rek xam ne loolu lu waay def ci jàmm rek yàlla rek moo la koy fay ndax ñun xamuñu dara lu dul sunu ciosan sunu ciosan moy lan nga ñew ñu téral la wayal la feccal la gugge la jàmm joju nak ñuy ñaan ci réew mi yépp président son excellence Macky Sall di ñaan yal nañu ko yalla may ci réew mi yépp mu sawaan baawaan ba ku nekk law si ba lépp lu ñu mëna def rek réew mi am jamm réew mi jëm ca kanam et vive le Sénégal. di wax rek né jaraaf euh, la jaraaf xarit la jaraaf lima ma mau moom muy yaayam yaayam nekk sama xarit nekk jigéen bu baax di ñu jàppale si fan ok bi lu ma xewle mu ñëw moo si njëkk loo xamante ne yëg na ko mu taxaw ah wek ma wek bu nga xamante ne xaw ma fal am na fu mu commencé mais xaw ma fu mu di rafetlu tem bi mu jël ndax yaakaar naa ne bu ñu wootee jàmm si lebu gi la njëkk jébu bu wootee jàmm rek ñëpp ñoo fekk kon ñom bu ñu wootee jàmm war nga ñew jog japp si jam jojo ndax jàmm moy defar rew moy tabax moy tax nit ñi wër moy tax nit ñi mëna genn di dem doxi seen soxla ndax fu jàmm amul rek lu si bare dafay teju mais fu jàmm am ah nyepu nañu bég gis nga tay ji culture bi niñ ko defee fecc yi ndaw rabbin bi couleur yi yëpp day wane ne rek ne la culture africaine surtout la culture sénégalaise dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a suqat ba nga xamante ne xale yi dañuy jàng lu bare si lii. donc gis nga géej gi ñu toog brise de mer baa ngi ñuy dugg loolu bu jàmm amul woon xam nga du am kon nañu ñaan jàmm di ko ñaanal mu koy def ay at yu bare bare bare bare di wax ne ñëpp jeunes yi mag ñi xale yi ndaw yi góor ni nañu ñaan jàmm rek yàlla defal ñu jàmm. émigration clandestine bi nga xamante ne moo xew dañuy ñaan xale yi dellu si waat seen xel ndax comme li may wax rek bu ñu dal si dellu see seen xel rek lépp dina baax ndax xam nga jóg. wacca yaay am nañu wacca doom am nañu wacca soxna am na ñu wacca am di jàmm xarit dugg si gaal gii di dem te nee nañu géej amul banqaas dama leen di ñaan rek ñu jéem a teg lépp si suuf te ñëw ñu waxtaan ñëpp a jàpp si ñu xool naka la ñuy régler situation bi te vraiment ñu dëddu émigration bi nañ ko dëddu ndax fii jàmmaa ngi fii ah liggéey ngi fii autorité yaa ngi siy dox président ngi siy dox maire yaa ngi siy dox ministre yaa ngi siy dox nañ ñu may rek xam nga dafa nekk loo xamante ne dafa sensible ba nga xamante ne euh, dañuy ñaan suñu doom yi parce que ñoo leen jur kenn rek bu duggee géej des si rek dafa mel ni Sénégal yëpp la kon ñu ngi leen di ñaan rek ñu delloo si seen xel te may ñu euh, ñi ngi réfléchir si mbir mi te xam naa du yàgg ah dina am lu bare loo xamante ne dina faj yëf yi. sama teewaay fii nag. mooy Adama Mbengue biñ koy fal jaraaf man man man la ñu indi ma taxaw comme grand serigne dakaar Dakar mu di xale boo xamee nii fii Soumbédioune dañ ko fi dañ ko war a am bari woon nañu ko contesté waaye tey jii réalité bi wane na ni ni collectivité la bu dafa war a yëngu te ci kaw yëngaluñu kon ci suuf war nañu jóg pour yëngal Soumbédioune nag ci jàmm ji ñuy xamee ni moom lañuy ñuy woote Soumbédioune dafa soxla tey ji am na ñaari kondiir ñaari kondiir yoo xam ni ndox la daan indi muy kondiiru fële ak kii ndax fii ci xog la bokk waaye kondiir tey ay salte la ñuy indi te mi ngi dugg ba si biir géej gi fragmentation bi géej gaa ngi avancé gis ngeen gaal yi ñu ngi nii ci tunnel bi te bu yàggee mun na ñëw ba fii ci kaw te yooyu yëpp war nañu am jaraaf bu taxaw war nañu am poste de mutuelle de sante ndax bu ñu gaañoo si gii géej gi ñëw mën a faju te poste de santé kon war na fi am war nañu am banque boo xamee ne nii war na fi nekk ndax lébu yu bu ñu di mën a garder seen xaalis bu ñu soxlaa bu ñu soxlaa ñu lebal leen bu ñu kiiwee ñoom ñu fay kon loolu war na fi am lépp nag ci jàmm ndax jàmm mooy xel mu dal loolu lépp bu amul dañuy wax ni xel jàmm amul kon nag loolu kon war nañu am poste de santé boo xam ne dañuy faju de fragmentation bi mi ngi avancé de la mer suñu gaal yi ñu ngi fii si tunnel bi te loolu du yoon kon mi ngi agsi kon war nañu defal assainissement si canal yi defal ñu kii bi barrage ba nga xam ne nii taw bi ndoxu géej gi du mën a ñëw ndax day ñëw fii ba si école bi te yooyu yëpp. war nañ moo tax su ma yun war na am jaraaf boo xam ne nii moo koy porté pour mu dem loolu moo tax nag bi nga xam ne le conseil du grand Cap-Vert du conseil des notables lébu du grand Cap-Vert dirigé par Youssou Ndoye ak mboolem ñi muy àndal ñu sawar si loolu lool moo tax su ma jun dafa war a am jaraafam. ndax li facteur yi ma wax yëpp moko ko porter mom pour mom mu doxal ko ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yalla suñu message bi mu dal di jall ndax jamm bo ñoy nee jamm jamm ci si esprit la nek te yoy yëpp bu fekkee amul suñu xel du mën dal. ndax mbir bu ñëk bi moy dama nek doomu Lebu bok ak euh mu boole ma tay ci événement bi muy suñu caravane. pour la paix nous donne une caravane ça vient à son heure parce que jaraaf un Diaraf par essence moi ki nga xam définir politique intérieure et extérieure la communauté bi dirigée. diriger te moom dafa wane la voix, wane une caravane pour la paix est un moom ambassadeur u paix la war a donc c'est ce que je ma teew fi aussi beneen casquette tax ma association geste bi ma diriger c'est une association qui œuvre pour le social et pour le développement communautaire donc naturellement nous, melni nous ñun dañ ci war taxaw wane ci vraiment suñu participation. Enracinement puis ouverture Aujourd'hui, aujourd'hui dañu sur suñu culture mais ci culture bi war nañ ci jangé luñu développer donc tay aujourd'hui enracinement Bob. dañ koy am garder suñu culture garder suñu identité bouts mais bëgg nañ aussi les yi au-delà même aujourd'hui de leur culture proprement dite rayonner ci mathématiques rayonner ci science rayonner ci développement Beaucoup de gens nga xam ne développer Sénégal donc tey loolu la ñu fait. On wane une culture mais aussi enracinement la ouverture ensuite. Aujourd'hui, un pays ne peut pas se développer sans sa jeunesse. Nous avons un rôle la ñu communiquer ak suñu jeunes Nous xamal un rôle, war nañ ici tay dañu am une grande richesse au Sénégal muy la pêche bi nga xamné moy dougal économie bu rëy a rëy a ci suñu deuk donc ñun ñuy ay acteurs lebu yi nga xamné tay communauté lebu lañ xamé pêche donc dañu wara fexé tay suñu communauté am doole bu nga xamné dinañ mën téye suñuy ndaw ñu tedd fi ci seen liggéeyu maam muy pêche jëm ko industrialiser également donc loolu war na nekk des causes yu nga xam ne communauté bi à travers Jaraaf ak ñeneen yi nga xam ne ay kilifa lañ war nañ ci taxaw bu baax a baax a baax a baax Yang ngi yon yoon nga ag fi nga tek sa tank nak fexel ba andax ak say bokk juboo say bok mu new mu bari nga dembali say bok sa ñak jot bul ko say bok xam lolu ak ndomb di jëriñ ak ndomb day dox ba mu wax sank def na luma neex dafa am ku ñew di wax ak mom mu ne ko tante turbine ba la ku fa ne si ndopp borom doomi tànk yi mu ne ko wana nga fa laman ak chef de penc ak Moussa Niang mu ne ko baa demee si chef de nekk boole na ma leen na la joxe koppar war ma ndoom dala joxe loolu ay dëgg rawatina nag ndey ji réew yi si coutume ndey ji réew daawur bay daawur ndoo yaa ngi may dëgg ku bànk ku ñàkk ku amul lu mu lekk ku soxla si ndey ji réew la war a ñëw te ba te bala neexee na ko uleb ko ba pare doo ko fay de sikkutuñ kon jikko yooyu yàlla na ko yàlla def si nun ba nu mën a dellu si waat lébu yi noonu xam ne nun ay lébu lañu te ñu yeewu di dimbalante sunu biir di jàppalante sunu biir bañ di xeexante te bàyyi di dóor dënn dóor dënn am la ko gën am nga lu ko gën sa mbokk nekk si jafe-jafe diblu bu comme yow war a am gàcce bul dog buum yo da nga koy dogaale nun foofu la ñu war a toll si jamono tey jii lii xew si senegal féete ko si nun lébu yi mu la mbëkk mi xew gaa nañu bàyyi gaal yi ñaa tëgg jël doomi jàmbur mu dib lébu comme yow muy jëflante yoo xamante ni ay wejuram yëgu ko nga fexe ba nanguy kopparam dugal ko si gaal mu dem sànku nga lekk koppar ya du la jikk kon nanu seetante sunu biir te ñu jéem dellu la maam yoo xoon laa koon faakoon ñaakoon doom topp mag mag topp bàyyi loolu moo jaadu raka topp mag doom topp bàyyi te njaboot yi ñun lébu yi bu ñu ragal sunuy njaboot nañuy waxtaan ak njaboot yi te xale yi nag lébu piir day doylu lébu piir bu lekkee cere yaabayam ba suur taalaaleem def na moomam àdduna ku dund ba ëllëg lekk ba ëllëg waaye barsa barsax ah bu yàggee ñi jeex de tundawaanu dëkk sa tëngéej day ah mu nga mu nga saa saf sàpp nag te loolu dafa mat a bàyyi xel bokk na su nun nii nag di borom ndomba yi ñu war a taxaw si loolu temm xeex loolu temm xeex jàmm ak salaam nag mu am fii ci Sénégal rawatina ndakaaru gi nu dëkk ñun lébu nu ngay seetaan loo xamante ne ab lébu xamu ko woon doomi lébu daawuloon yàq doomu lébu daawoon taalab dëkk doomu lébu da daan déggul ay wéjuram du fen du def naka si dul noonu loolu moo jaadu borom ndomba yi fi nekk nag maa ngi leen di dolli borom ak ndomba dala amu fit du gaaw a pat du gaaw a ragal boromam dama du jooy nanu bàyyi yàqante bi bàyyi la xastante suñu biir te dundé na comme juif yi la dundee noonu lépp noonu lañu war a def di suñu dund comme juif yi la dundee ab juif bu juif di jaay gerte caaf fii juif yëpp si moom la ñuy ab juif bu juif di jaay jën juif yëpp si moom la ñuy ab juif bu juif di luwe këram juif yëpp fa la luwe ba mu des nag takkam jabarax loolu loolu nañ leen ko bàyyee waaye si wàllu ndimbalante ak sàmmante noonu jéem a dundal noonu joxantee loxo waaye gisab lébu bu laa am lu ko neex mu ngay jàppale ko jóge si àll ba ba kaña ba kaña lébu mbaalam la wax la kenn gënul kenn maam mii day toppante maam mii toppante maam mii toppante koo gënul nag mënoo kaa xas kon noonu bàyyante xastante bi jàppante si biir bokk dimbali si biir a bokk lébu yi ñooy takkante nooy ngéntente nooy dëjante donte nag bu nuy ngéntee xa dëja xa takka danoo xuloo dana xeex waaye bu nu paree nag nekk si jàmm loolu mooy dëgg li ko daggee ngor ba jalaaw ngor ba jandeer nun borom ndomba yi nanu gëm ne kenn lu nu am muy jaraaf yi su ndoy mi toog jaraaf yi sa teewaay bi neex na ma lool nit ku baax nga xam nga tax nit ku baax nu muy mel loola na xari dang koy wax ba pare nekkaat si jàmm nekkaat ak kooku si jàmm nun nag amuñu ku nu leew yow la nuy àndal ba dee de nan waxanti dëgg jaraa fi su yow la nuy àndal ba dee boo ko yow la nuy àndal boo bañ yow la nuy àndal par abli liwu piir nga nit mënu laa génn sigle bu boo xoolee sa néegam ndey da ngay ko ba jaxa sax moom xool sa néeg bàyyi ko ba jaxa sax kon aw foog nga bëgg lébu te loolu tax nga bëgg gi nga nekk jaraba jaraab joo xamante ne danga nga marqué sa empreinte ma les fleurs parce que dama fekke lépp kon jaraaf yi si yàlla na yàlla ndomba yi toog nag gëmal ne say njaboot lañu parce que lu mu nag yàlla dogal na lébu kadi kilifa si biir lébu ga ku la ndomba rek mooy sa kilifa te yàlla nattoo na la nag tey si cap kenn magu la si ndomba nag si Cap-Vert loolu yàlla dogal kon yàlla na yàlla yàggal la ñaan nga ma la ñaanal sa mag yàlla na la dal nee naa yow yàlla ni fi kaaba yàggee dëgëree noonu wéree noonu yàlla nga dëgëree noonu jaraafisu eh te loolu muy dëgg kaaba yàgg na fi ku ñëw de ku ñëw fi nga ko fekk ku dem bàyyi ko fi kon yàlla yàlla dëgëree noonu ñu bari nag comprendre ñu woon xamuñu woon waaye tey jii xam nañu ki yee jaraafisu eh parce que bu ñu demee ba le président Macky Sall di la takkal ordre national du lion loolu moom moo ko moomal boppam moom la président de la république ah lu ñu ko mën a wax ci yow rek dem na ba xàmmee ne la vérité mooy dëgg ji matériel lii yàlla yàlla na yàgg yàlla na sa wërsëg loolu daal laa amul lu ma ci wax di ñaanal ku fi teew yàlla na yàlla faj sa aajo dooli sa sutura may la wér yàlla noonu yàlla boole may wér may ñu xaalis bu bëree bëree bëri bëri bëri gaa ñi dañuy ñaan xaalis yalla moko mom moko amé ko joxé boko ñaanul mu jox ko kenen de ko ko ñaan rek kon boog nañ ko ko ñaan kon may té mu barkel jaraf Adam, la ma la rek mom la lay waxat lenn do nga ma jaxal nak li nga nangul takam ñaare rek do nga ma jaxal loolu do nga ma tak jaxal loolu kese kese moma jaxal ci yow waye gannaaw loolu ya nga ci yoon yalla yalla barkel journaliste yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërëm di gërëw gërëm sunu géwél yi taxaw waxkat yeex tëggkat yeex tur bi ndaw ni politiciens yi fi ñëw ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñi daan liggéey ci place bi te may jaraaf aadama pour mu tànt fi lii tey ñu ngi leen di fay di gërëm waa Gueule Tapée ak Soumbédioune kenn mënu leen fay jàpp gi ngeen jàpp jaraaf aadama genn golo yi gudd na waaye gàtt na waaye loo sa laal borom yëkk di gërëm samay mbokk yëpp di gërëm Gueule Tapée Fass Colobane Fann Point Amitié Médina tund Jandeer di gërëm Cap gi yëpp di gërëm képp koo xamante ni jàpp nga ci bés bi teg nga loxo si bés bi di gërëm Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu baax a baax a baax gis naa jàppalem gis naa teg loxom si kii di gërëm na njaay di gërëm Kodou di gërëm di gërëm fu mu toll nii sama xol dafa fees ba mënuma wax sama xol dafa fees wax dëgg yàlla ba mënuma wax nday seen ba Ndour maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax parce que taxawaayam bokk na ci lu ma gën a neex si bés bi parce que moom doomu lébu la tey cosaanu lébu yi dañ ko war a jàppale dundal ko cosaan yi buy faral di am état du ñu jàppale cosaan buy faral di am état di ñu jàppale kon problème yi ngi si réew mi yëpp doo ko gis parce que lébu lii la xam ka fooree mais lébu bu stressé rek dugg ci leneen tey gis nga lébu yi message yu ñu fi sànni message yu ñu fi lancé foo yu ñu foo lépp lu nekkoon seen bopp dem ñu ñemee waxante dëgg toog xamal leen ni mbëkk mi baaxul ñemee waxal leen dëgg lébu du yàq lébu du taal lébu dafa am jukko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm alsan bay tamit bu bah baaxa baax a baax xataayam moo tax ñewul ma ngi koy sant bu baax ku ñew ak ku ñewul sa yene yeb gis na ko moy ñew gis na ñaani di gërëm wa Dat medina surtout ma ngi leen di sant bu baax sama partenaire yu baaxa baax ngeen sant nañ ñep gërëm nañ ñep suñu xol dama fess torop torop torop wax deug yalla am na ma deey nee ma li nga gëna marqué moy présence du joolaa yi gis nañ ne naka ko wu defi euh, ci caravane de la paix bi. lan ngay wax sa mbokk yooyu xam nga caravane ba mu fi demee sam première sortie yéen la li ma fa dund yéen la xam ngeen xam naa li si xew yëpp xam nañ ko ñoom loolu la ñu dabu si fay bor jàmm laa fa dox ci woon. ñoom ñu dégg ni damay woota jàmm ñu ñëw kon jàmm si la lépp xaj kon sunu mbokk joolaa yi sant nañ leen gërëm nañ leen séeréer yi sant nañ leen gërëm nañ leen tukulóor yi sant nañ leen gërëm nañ leen mananga naar yi ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen kon yàlla na yàlla yokk jàmm ci réew mi jàmm rek la ñuy ñaan yàlla na jàmm sax